جي أن تغفر شيخ سعد لبي ذنوب نسلي ووالدي وزوجه وكل منتم إليه والتفت دغر جمر إليه ولا توجه أبدا سرا إليه وحبلو لم لم أردوانا بجاي مدغ سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم kàddu yi ngeen fas yeene déglu mu jaar ci média yi mi ngi tukkee ci cheikh na cheikh aya doomu cheikh na cheikh Talib Boye doomu cheikh na cheikh saadu abihi di xalif général kullu xaadir mi ngi ko jamele ci lan li aju ci korite nimchar mu jël kàddu gi nag jox ko jarbaatam at xaana doomul walid دوم القانا دوم الشيخنا الشيخ صار بو تيتا والو اكر الشيخنا الشيخ صار بو ييب واكر الشيخنا شامد فاضل ييب اك طالبي ني دغلو كادو يي أه، بسم الله والحمد لله موي سانت تي يالا دورا تي يالا دي سانت يالا والصلاه والسلام على رسول الله دي جولي دي سلمل تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تي كادو خليف جنرال يا خادر موني تي كادو خليف جنرال كل خادر دي شيخنا شيخ سعد بوتاي تي كوسوف كيغا خامني موي شيخنا شيخ سعد بوتاي كوسوف دي شيخ اياه مو شيخ طالب بويا دي شيخ اياه مي شيخنا شيخ اياه مي مو شيخنا شيخ طالب بويا مي فاس يينا دي لين ليرال اي بوين يو خامني مي توكي تي موم نانا داي فاس يينا ليرال اي تومب يو خامني تي نديغليم لا موم تي سانتاني موم شيخنا شيخ اياه بو مو تي دوسو اك كليفاي اك خليف جنرو يو واكر شيخنا يب ginnaaw bi nga xamee ne diisoo na ci kaddu yi ak buntu kër Cheikh na Cheikh Saad bu yi nga xam ni ku fi teew yaa fay représenté ka kër googu di xalifa kër ga. yëgal ko cheikhu cheikh na yëpp. ginnaaw ba mu ko yëgalee cheikhu cheikh na Cheikh Saad bu yëpp. ak ñi nga xam ni kër gi tariqa bi diine gi. ak ñi nga xam ni kër gi tariqa bi ak diine ji. ñor na leen ñor na leen. nekk ci wetam. te ñu nekk ci wetam. ngir mu wor ko ni. mom ci bopam mom ci bopam mom Cheikh na Cheikh Aya njabotam benno nañu benno nañu. pare nañu pare nañu. pour liggéeyal ngir liggéeyal. diine l'islam diine l'islam. liggéeyal humanité bi liggéeyal addina ndax du khadir kessé monu ndax ndax du khadir kessé kessé kessé moñu itel khadir sunu njabot direct deug la sunu njabot direct la. waye këru diine bu mun a. waaye këru diine bu mu mënta doon. waakar rasulillah waakar Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ngay xaar ci ëtt bi ngay xaar ci ëtt bi ëtt bi ñëw. ñoom ngay xaar ci ëtt bi ba ñu ñëw. nga won leen nga won leen. seen liggéey seen liggéey. sa liggéey sa liggéey. ci seen ëttu maam ci seen ëttu maam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gaynde Fatma Serigne Cheikh. nee na Serigne Cheikh Gaynde Fatma. daf ma ni. dafa ni ko. benn bés. benn bés. abuwaay. abuwaay. ni ma. dafa ni ko. لتخيين واكر رسول الله لتخيين واكر مامبروم توبا لوكو يين لتخيين واكر بروم مامبروم توبا لوغين ام جوخ شريفي ادي لوغين ام جوخ شريفي ادي موني ماما خامني واجبي موني ماما خامني واجي خم خم تاخو كو جوك خم خم تاخو كو جوك خلو ادينا كسي خلو ادينا كسي كتاخو جوك تونتو كو تي ادا ما تونتو كو تي اي افريكان لا اي افريكان لا li mu baaxoo. li ñu baaxoo. suñu maam suñu maam. mooy ku bay ci suufu maamu mooy ku ci suufu maamu nit. bu mbéy mi baaxee. bu mbéy mi baaxee. nga sak jox nga sàkk ci jox ko. mu ni leen sunu maam béy na ci seen toolu maam sunu kon béy na ci seen toolu maam ñoom sérif yi. sunu tool baax baax sunu sunu tool ndax baax na am déet. toolu Cheikh Ahmed Bamba baax na. ñu ni ko ñu ni ko baax na kay. ñu sakk jox leen mu ni kon kay wax dëgg yàlla war nañoo cee jël ñun waa kër Cheikh Ahmed Bamba daal di jox waa kër Cheikh na. li tax ma wax loolu surtout Rasulullah kon nag nee na li tax ma loolu. du pour du ngir dëggal. du ngir dëggal. du ngir dëggal. li këru diine yu baax ya. ni këru diine yu baax ya. mel ak waa kër Cheikh na. mel ak waa kër na. waaye ni ma ko indee. waaye ni ma ko indee. moo di yéen. moo yéen. ngeen bañ a foog ni. ngeen bañ a foog ni. taalibe tariqa ngeen. taalibe tariqa ngeen. déedéet. yéen taalibe lislaam ngeen yéen taalibe lislaam ngeen. te ñi jàppale seen wasila. taalibe xaadir yi mu ni yéen taalibe lislaam ngeen te ñi jàpp ne seen wasila. jàppale seen i maam. ñi jàppale seen maam. yéen war ngeen jeex takk ci ñoom. yéen ñooñu war ngeen a jeex takk ci ñoom. bu murit wootee. bu murit wootee. ngeen def lépp. ngeen def lépp. ba mu am ndam. ba mu am ndam. tijaan naka noonu tijaan naka noonu. keneen naka noonu keneen naka noonu. waa kër rasulilah waxi noppi waa kër rasulilah waxi noppi. xalifa bii toog. xalifa bii di Cheikh na Cheikh Aya. loolooy tawatam. loolooy tawatam. ndax loolu mooy mooy wane seen benn. ndax loolu mooy wane seen bennoo. seen jàmmoo mooy seen jàmmoo. te olof. te wolof. léeb nañ ko. léeb nañ ko. dañu ni. nee nañu. wat gaal. wat gaal. yëgu ak yëgoo. wat su ngeen bennoo ci gannaawam su ngeen bennoo ci gannaawam lu ngeen riir ut si ko lu ngeen riir ut ko ci addina ci addina ak lu mu mënta doon ak lu mu mënta doon ak alaaxira dina yomb dina yomb waaye feek defu waaye feek defu leen boobu bennoo ku ne ku ne jëm jëm jël saw feem bew saw xàll dem ak moom du ñu dem fenn loolu mooy tomb bu njëkk bi ñaareel ñaareel tomb bi xam na xam na ñi nga xam ni Cheikh na Cheikh Saad Bou mooy seen yaakaar ñi nga xam ni Cheikh na Cheikh Saad Bou mooy seen yaakaar te ñu tàmm ko te ñu tàmm ko def ko ci seen biir xol def ko seen biir xol ñu ni ñu amee lu leen métti ni ñu ni ñu amee lu ci daaw ci daaw bi ñu amul occasion pour Korité ci li ñu amul occasion ngir dem Korité ji Nimjaar mu toog ci Nimjaar mu toog ca Nimjaar taalibe yi sàkku ci moom taalibe yi sàkku ci moom mu fexe ba mu fexe ba Nimjaar mën a am mën a am ren mu yónni ci ministre de l'intérieur. mu yónni ci ministre de l'intérieur bu Mauritanie. ni ko ni ko. dafa bëgg xam lan mooy taxawaayu président Mauritanie. damaa bëgg damaa dafa bëgg xam lan mooy taxawaayu président de la république Mauritanie ci euh, Korité Nimjar bi. mu ni ko d'accord na mu ni ko d'accord na. mu ni dama bëgg dégg loolu ci. mu ni laal bëgg naa ko dégg ci nopp président bi ci boppam. ci waxtu la ko woo. nee ca waxtu la ko président la ko mu fekk ci Nouakchott mu fekk Nouakchott. mu wax ko wax yu tedd. mu wax ko wax yu. yu baax yu baax yu tedd yu tegginu. yu gën a kawe yu gën a kawe. lu mu foog a woon njar njortam. mu daal di bàyyeeku foofu. ñëw mu bàyyeeku foofu nag daal di ñëw. xaaral ma ñëw xool shérif yi xool. taalibe yi kon nag xaaral ma ñëw xool shérif yi ak taalibe yi. déglu gouvernement Sénégal déglu it gouvernement Sénégal. ndax Sénégal. ndax Sénégal. شربو مو امتي برناش النمجان نانا تشربي مو امتي كورتي النمجان بي دفري لول دفري لول ندخ ما جوري تبي ندخ ليتي اب ci Nimsaat la ñu bàyyi ko Nimsaat la ñu bàyyi ko. Sénégal la ñu Sénégal la ñu bàyyi ko. ñi ci des waaye ñu ci des. ñu ngi jaar ci frontière ru Sénégal. ñoo ngi jaar ci frontière ru Sénégal. moo xam Gambie moo xam muy Gambie. muy Guinée Conakry. Guinée Bissau di Mali. Sierra Leone ñoo ba Côte d'Ivoire ñëpp. fii la ñu jaar Sénégal transité door a wuti Nimsaat. place su gouvernement ci pèlerinage. nee kon place gouvernement Sénégal ci pèlerinage Nimsaat. dafa di lu rëy lool. dafa lool. ba tax na ba tax na il mu déglu il faut mu déglu njabootam yi fi ne njabootam yi fi ne autorité yi nga xam ni ak ak autorité yi fi ne ñoom itam ci biir njaboot gi la ndax ci biir njaboot gi lañu mu ni mu ni gannaaw bu mu déglu ñëpp ginnaaw ba mu dégloo ñëpp diisoo ak ñëpp diisoo ak ñëpp yëg na ni yëg na ni li ñu wax ci wàllu test bi ci euh, quarante mille francs li ñu wax ci wàllu test bi ni quarante mille francs juróom-ñetti junni kooku mi ngi aju ci ñi dem aéroport. loolu koy mi ngi aju ci ñi jaar aéroport. lu mel ne tukki na ci. jaar ci avion. lu mel ne tukki na ci ministre de l' intérieur. <coughs> maanaam ministre de l' intérieur bu Sénégal. ministre de l' bu Sénégal. Euh, euh, nouvelle boobu. nee na mbir. moom moo moom moo ko ko jox. li aju ci Mauritanie. li aju ci Mauritanie. gouverneur ba fa nekk. gouverneur ba fa ne. xamle na ni. na ni. donte amoon na circulaire. donte amoon na circulaire. bu jóge ci ministère de l' intérieur. bu jóge ci ministère de l' intérieur. ci santé. jëm ci santé. ci wàllu euh, ñàkk bi. ci wàllu ñàkk bi. da kaddu président. ne kaddu président de la république. moo ëpp poids. moo ëpp poids. yooyu kaddu. yooyu kaddu. ba tax na ñoom ñaar ñëpp. ba tax na ñaar ñëpp. pare nañu. pare nañu. pour ku bëgg a dem. ngir ku bëgg a dem. nga dem nu mu la. nga dem nu mu la soobee. mais mu teg ci nii. mu teg ci nii. moom ci jëmmi boppam. moom ci jëmmi boppam. njabootu sous région bi yëpp. njabootu. Euh, gox goxaan yi yëpp sous région bi yëpp. njabootam la njabootam la ñu. ñaari état yi. ñaari état yi. du leen mës a du leen mës a laaj. wala di leen mbaa mu leen di sant. loo xam ne àndul ak yoon. loo xam ne leen àndul yoon. bu àndee ak yoon ba bu àndee ak yoon ba pare. ànd ak yiw. ànd ak yiw. ak wóor. ak wóor. mu soog ko. mu soog laaj. leneen du ko du ko masalaat. nee na leneen du ko masalaat moom Cheikh na Cheikh ah, ah, ay contraire kay nee na bu gisee sax ñu bëgg ko def bu sax ñu war bëgg koo def. mooy jëkka a wax mooy jëkk ni déedéet teg leen lii ci suuf. luy loram jaww askan bi duma ci. waaw loo lépp loo xam ne lii kat day indi loraange askan wi ànduma ci. moom xam na ni. nee na moom xam na ni. mbir mi jege na. mbir mi jege na. xam na ni. xam na ni. Euh, nit ñi. nit ñi. sonn sonn nañu. ba na. ba tax na. nee na nee na. képp koo xam ni. képp koo xam ni. bëgg nga ñëw Nimjar bëgg ngaa ñëw Nimjar. ci sa coobare bopp ci sa coobare bopp. te doo ci doo doo ci am benn fitna te ci boo am benn fitna. moom mi ngi lay xaar nee mi ngi lay xaar. koo xam ni shérif la koo xam ni kii shérif la. mbaa taalibe la mbaa taalibe la. xam nga ni. xam nga ni. sa déplacement sa déplacement. wala sa déplacement njaboot. mba sa déplacement njaboot. di nga ci sonn. di nga ci sonn. mi ngi lay ñaanal yàlla. ñaan mi ngi lay ñaanal yàlla. nga toog fi nga toog. nga def sa korité nga def sa korité. ba déwén ba déwén incha allah. yàlla may ñu ñu waaj ko nañ ko daan waajee. ñëpp mën koo jëfee ni ñu ko ñëpp mën koo jëfee ni ñu ko bëggee. qadiriya xususatan waa dem fi muslimiin amuwa. bismillahi rahmani rahim من الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة آمين الله يضاعف شاء الله والله واسع عليم ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربي وقم الصلاة واجعل تسمى الناس يستهوي إليهم وارزقني من ثمرتي لعلهم يشكرون وأذنه الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فجر